wante dañuy dañuy sant yàlla bu baax sant yàlla ci bi ñu fekkee waa yi région Kaolack dans de bonnes conditions conditions yooyu nag euh, mënul am su fekkoon ne ñi ci waroon jàpp jàppuñu ci euh, en premier président chambre consulaire yëpp muy président chambre de commerce Serigne Bopp ak président chambre de métier El Hadj Ndiaga El Hadj Seni Seck Ndiaga Ndiaye mooy SG bi donc ñoom ñëpp ma leen di remercier baax di remercier opérateur économique Kaolack yëpp ak industriels yi sax ñi nga xam ne ne participer nañ ci ba euh, Kaolack nekk ci conditions yu baax bi ñu ñëwee nag euh, li ñu remarqué surtout te lu am solo la mooy Kaolack lépp li fi egg indi di ko exposé ay produits la yu nga xam ne nii ñu ngi ko bayee Kaolack wala ñu ngi ko defaree Kaolack transformé ko Kaolack indi ko ci ci foire bi loolu am solo la. parce que foire jënd ak jaay la ak weccante xalaat ku ci nek li nga am loolu nga yob. Waxna ko sax mané buñ doon xol région bu nek limu mu indi je crois que Kaolack kenn duko ko kenn du gën demin donc loolu lu am solo la ñu posé won fi na un certain nombre de doléances doléances euh ñu wax affaire site affaire site moy fiñ ñu leen di dalal je crois que ren amon na touti touti retard mais je crois que gannaaw PCA moom mi ngi fi. ah bu soobee yàlla bu ñu noonu dé suba suba suba sax la ñuy organiser waat affaire yi kaw la kenn dootu ko fi njëkk donc loolu am solo la beneen bi aussi mooy euh, ñu dimbale leen euh, parce que xaw na métti tuuti parce que foire bi aussi ku fi ñëw yaa yore sa bopp ci wàllu lekk ak yooyu yëpp quoi léegi xam naa ne nag président Serigne boobu dimbale na leen bu baax mais dama wax secrétaire général bi ne na fexe ba suba suba suba xaw ma fu mënta ne ci ci àddina bi mais daal na ko joindre ba suba suba mu andil exposants yi appui bu nga xam ne danañ fi mën a nekk euh, ci kan anam yu gën a am yu gën a am solo ah luñ jaay nag damm seen poste mais ñu dimbale leen ba vraiment duñ fi ni ñu gënoon a toogee ñu gën ko toogaat ba duñ fi am benn tumaranki beneen bi ci terminé mooy dañ bëgg nag ñu euh, ñu leen di associer ci yeneen foire yi am ci bitim réew notamment salon international de l'agriculture. agriculture wax naa léegi ne ko gannaaw ci organisateur une délégation qui nga exposant produits Kaolak. ñu dem Nous présenter représenter région bi salon international agriculture de Paris. foire dafa am limite de temps donc il faut que nous ayons... Euh, béréb bu nga xamné dinañ fa mën jaay seen produits en permanence béréb bobu nak du dara lu internet. moo tax ma wax chambre de commerce nañ créer plateforme plateforme bu nga xam ne dañuy dajale jaaykat yi artisan yi ñëpp ñi nga xam ne ñooy exposé ci foire yi ku ci nekk indi sa produit ñu jël sa adresse jël forme société bi nga am jël sa numéro téléphone ba nga xam ne ni mën ko mën a jaay ci addina bi yëpp je suis sûr loolu bu buñ ko gisee am na ay produits yu ma fi gis boo may dinañ jaay ba finalement dootuñ amati luñ jaay parce que danañ li ñu yore ci yëpp capacité yëpp danañ ko développer notamment par exemple ni ma fi gis ci affaire coiffure je sais que loolu bu bu demoon ba Amérique découvrir ko je crois que marché bu am solo la ci ñi ko fi def sans compter nag yeneen produit